salaamaaleykum mbokk yi baaxoo safoo seetaan seen site euh, TMS TV ñu fas yéene jàllale benn communiqué bu bàyyeekoo ci ki nga xam ne moom moo di xalifa général euh, kullu médecine traditionnelle Serigne euh, Thierno lay Sow yaakaar naa ni ñëpp xam na ni ni jamono ji ñu toll li nga xam ni moom moo di balaa bi wàcc ci kaw jamono ji Serigne mu Moulay Sow jugoon na ànd ak taalibe yi wàcc ay kaamil def ay benn dem géej daal di ñaan yàlla ngir mu oyofal balaa boobu kaw doomu aadama yi euh, ba tax na saa su ne di ñaan yàlla rek euh, li nga xamante ne bi moo dugg ci suñu réew muy feebaru coronavirus bi euh, suñu borom daal di koy tegg ci askan wi ci jàmm ak salaam kenn ku ne ak foo mën a nekk mi ngi lay ñaana moom na mu Moulay Sow yàlla na la yàlla defal jàmm ak salaam ndax kat jàmm ci la lépp xaj li war a communiqué bi mooy kenn képp nga xam da nga naan ñëw ci moom am yaakaar ci moom ngir ñëw faju foofu Euh, faj bi ci jamono yi ñu toll euh, tax na nee na heure bu demee ba nga xam ne dana commencé waat ngir recevoir nit ñi euh, commencé waat liggéeyam dina defaat vidéo ci fi nga xam ne moom moo di TMS TV yëgal ko mbokk askan wi yëgal ko mbooleem kenn ku ne ak foo mën a nekk bu boobaa dina ak si ci yow moo tax rek mu leen jox rendez-vous ko naan leen na ngeen ko déglu patienté di ko xaar ci YouTube bi heure bu commencé waati liggéey euh, incha allah dina def vidéo boo xamante ni ñëpp dana xam ni commencé waat naa liggéey euh, Serigne Thierno Moulay Sow nag mi ngi ñaanal Sénégal euh, suñu gaal yàlla na fi yàlla def jàmm ak barke.